15 mars bi ñu bàyyi si xel parce que 15 15 mars ñu koy ñàkk xamal xamal xamal moo ko ëpp doole 8 mars bi nga xamante ne ñëpp xam gis nañ tem te traitement si am femmes yi ay consommatrices la li si biir ñu ne dafa ëmb lépp ñu leen fàttali ñu leen di fàttali di leen bàyyiloo xel que ñun ndaw yi dañ nekk pour cent la population am na ñu fiy teg. te dañoo seetlu am ñàkk wóolute gi nga am seen mari mooy problème emploi ça pose problème problème financement ça pose problème problème accès au service public accueillir bi war a am ça pose lu wax benn modèle social collégial parce que am fi am na ay structure yu bëri jaar nañ ci taxawal ay enquête ay fonds ay ay fonds ñun journée boobu moom la ñu ko jagleel dañu. base bi dem foofu évaluation de diagnostic yi lan moo tax politique yi ñuy mettre en place yi pour xale yi ñu jeunes yi lan moo sax jëm non c'est bon lenn mën laa jàpp ne dañ leen si ñàkk a boole dañ leen dañ leen wax ne yéen kat ay ay dépendant ngeen ay bénéficiaires ngeen am nañu droit tànnal seen bopp am nañu droit jël seen bopp yoon loolu mooy erreur bi nañu def ay acteurs li ñuy nawle li ñuy wóolu wóolu kat ne yéen lan ngeen ñu proposé par rapport ak yéen li nga xam ne moo leen loolu dafa manqué beneen bi tamit ñun xale yi toog di seetaan dañoo xeex dañu duñ sonn dañ bëgg a ba pare duñ sonn si suñu bopp loolu dafa war a dee tey buñ jugee tam Sénégal bu bees ak bu Sénégal nii Sénégal mu ngi mu ngi dox mu ngi avancé mu ngi dox ñu mu gën ne ne dafa laaj ay correction ñu corrigé benn exemple mën naa sax jox li ko demee ci financement jeunes yi nga xam ne dafay tardé président décidé na taxawal li li li ñuy wax financement rapide des jeunes et des femmes wax na 30 milliards chaque chaque an man ki ko yor rencontre naa personnellement mënoo boo ko doxee yeneen formation xale bi ñu jël dinañ la defal éducation financière financer la rapidement. amatul yenn yenn gàllankoor yi nga xam ne pour nga pour financement du am si fond du am si fond te avril bi la ko de la seen projet bu ñu ñëwee ñu yaa ngi ñu war c' est que tamit ministère de la jeunesse tamit rôle bi ñu ko jox monsieur yi mënul jox nit ñi liggéey.